ba euh, bañ jógee ci li nga xamante ne moom mooy safar déggoon nañ sa combat ak Garga Mbossé euh, ñu gis ni dem nañ ba benn instant ñi naan combat bi taxaw na wala taxawul komba boobu noonu euh, Sa Thiès combat Garga yaa Garga Mbossé combat boobu fu mu toll. waaw waxtaanoon nañ ci ak ak ay promoteur ah waxtaan nañ ci ak promoteur am na ñoo xam ne woo nañu waxtaan nañu ba tënk mais après lañ leen gëj a dégg am na keneen koo xamante ne woo nañ ko mais booba léegi nee na ma gëj ñëw dégg tuuti nag gën ñuy dégg tuuti. waaw mais peut-être am nañu yaakaar daal incha allah combat bi dina uh-huh. gis ni Prince dafa waxoon sa combat moom moo koy taxawal foofu noonu ah, fan ngeen mujj yéen ñaar. non Prince dafa def devoir am Prince dafa bëggoon sama combat ak Yékini Junior def na ci jéego franchement parler ñëw na ci man ma jox ko sama kàddu mu dem ci Yékini Junior peut ci Yékini moo ko doon taxawal mu tardé mais combat bi peut-être mënoon naa taxaw sax avant Yékini Junior di ñëw waaw ndax moment moom. amul jour ma presse du woo amul trois jours yu muy teg te te du ma woo wala muy gisee te ak moom amoon na ci yéen trop trop trop trop mais xëy na combat bi euh, ñi ko bëgg dañoo bëri <coughs> presse na bosam pare moom Yékini Junior la gën a bëgg waaw man ci àdduna du ma ne du ma bëre presse mukk te du ma ko mës a wax mais sonnoon na trop ba ma bañal ma ko bëre nag mais xëy dafa tombé rek moom li mu doon xaar moo yéex a ñëw. moo tax yeneen promoteurs yi tamit di woote di wax te xam nga ñun moom ku ne xam ne ñooy marchandise la ju rek. <laughs> ñu ci marché bi. waaw lu waay waxaale bu ñu jiwoo dañ ñuy yóbbu. Mm-hmm. waaw mais ñu ci bari sa combat ak Yékini Junior dañ koo bëgg parce que ñu bari dañ ne combat bu combat la ñu dem ba benn instant gis nga ñu ne Sa Thiès ak Garga Mbossé Sa Thiès da ngay daw Yékini Junior. non non xam nga Yékini Junior benn promoteur moom moo wax moom wala astafurlah ñaar. presse la ak gasso ñaar yëpp bañ ma ko waxee dama jox suma accord mais yeneen promoteur yi ci des yëpp sama combat garga moo na gën a ñor loolu loolu loolu la demee. mais instant bi daal avance duggagul mais tamit tey buñ la joxaatee avant buñ la proposé Yékini junior nga jël buñ la proposé garga nga jël yow daal euh, combat bu taxaw daal ngay xaar. waaw ñun bëri moo ñu ñor bëri moo ñu ñor parce que temps bi ñuy toog fii yu ñu def ñu dara am ñoom amuluñ njëriñ amuluñ bëri njëriñ ñu fi nekk di solo suñu bopp toog fii lu ñëw ñu entre parce que bi di entraîné te yow gisoo li nga entraîné tamit dafa métti ndax tamit tey suñu entraînement dafa laaj xam nga au moins nga war sa benn weccet man man cee góorgóorlu te xam nga moom boo andalee toog fii chaque jour nga xëy di diggante ak say nit am yoo xam a rafetul waaw mënoo dëkk ci ñaan te man sama lépp làmb la bàyyi naa sama métier ndax làmb amatuma benn choix bu dul doy si ci làmb ñu bari ne ba nga jugee ci booy Niang ba léegi Sa dañ koo gis ni waxatul defatul dafa mel ni booy Niang dafa xaw a yóbbu xoromu Sa Thiès wala li combat gul moo tax. non boo xoolee man est que man li ma def interview yeneen mbër nañ ko def interview. man damay billaay damay daw sa interview yi barki alxuraan man ma est-ce mbër yi man ëpp ma li may yenn saa bi ma woowee sama naan leen ndax yéen man dong maa fi nekk. dama bañ seet yeneen mbër yi mais nag làmb la làmb la woon xam sama xorom moom dëgg yàlla yàlla moom ko sax yàlla am ko sàmm waaw dem ci yàlla na këf ko ci loxo mënoo ci dara waaw kon ah. xorom gi ma yàlla dénk mu ngi ci loxo yàlla fii ak nit demul këf ko fa ah. xam naa nit am fa sañ-sañ dafa dem waaw xëy na làmb Sa Thiès moo moo moo moo laa doon maa dugg géew rek ok da dugg géew waaw <coughs> nommeel bi jeex dañ ma nomm rek loolu doo nga la. ñoom ñu koy wax rek. <laughs> Salif beneen mooy gis nga wàllum CNG fan yi Euh, Alioune Sarr le 31 octobre lay jeexal 26 ans de pouvoir waxoon nga ci sax bien vrai que ne waxoon nga ci le 31 octobre si la Alioune di jeexal. ñii ne fédération lañ bëgg ñii ne CNG lañ bëgg a maintenir ñu gis ni ñu bari euh, bien vrai que ni sax du li nga xamante ne ay candidature la ba nekk loo xamante ni da ngay ñëw ñu ne la kii la wala nangam euh, ki nga xamante ne moom moo ko ŋànk mooy xool ku ko neex mu teg mais yow loolu nan nga ko gisee ak ñi nga xamante ne ñoom ñëw ñu bari sax ne dañoo bëgg a yor CNG. encore daal buñ ko jox ko xamul làmb ak ñoom ñëpp kuñ ci mën a doon nañ ko jox ko xam làmb ak koo xamante ni bëgg làmb ndax xam ki xam làmb dina la mën da kenn du ko jàngal dara li jëm ci daaman li dugg ak liy génn ki bëgg làmb nag dana mën a defar làmb ak yene farma làmb dafa am lu ci baax am lu ci baaxul am la ci gën am la ci gënul te keneen ku toog it dana demee noonu ndax tamit mënoo yili fukki nit yi gën a néew ñëpp bokk ci ko bokk xalaat dafa néew dafa néew léegi ci dëkk bi mais li ma koy dénk rek ku ci mën na ñëw bu ñëwee na xool li nga xamante ni amu fi woon te mën na ko fi def te bu ko defee dina mën a jur li avancé làmb wala li nga xamante ni ku di nga gis mbër bu ci di nga ci gis sa bopp nañu bàyyi waxi intérêt te teg ko ci domaine liggéey yaa ma dégg foofu la foofu la làmb toll man de am na ñu bëri xaw ma leen dama la ñu dégg rek wax dëgg yàlla. zootechnique xamoo ko. zootechnique naa ko dégg. su ah, Kéba xam naa ko. Tyson ñëpp di wax am nañ capacité pour yor ko. dëgg la ma la wax. làmb la ko mën a yor soriwul. soriwul de mais nag la ca war askan nañ ko def man moom laa chaque jour xam nga tey ki ka yor ku nekk war ngaa xoolaat baax làmb jël sa big sa fooy bind li faayit nga rëdd ko teg ko ne la yëpp bind ko teg ko ne xool li nga xamante ne lii moo taxoon làmb di avance nga fexe ba jël li nga xamante ni mooy rëkk-rëkk yi jéem ko éffachenché jëm ci làmb ji li nga xamante ni moom nga fekk mu baax nga yokk ko te nga bañ a gaaw mer bañ a gaaw gis sa bopp te ngay déglu di waxtaan ay kay nit farma ku dëgër bopp doon CNG wax dëgg yàlla te même boo liggéeyee sax ñu wax la naqari te nga gis sa bopp te du ko jar. làmb nag dafa nekk loo xamante ni méttiwul métti na waaw na de ndax xel moom bu la nee méttiwul méttiwul mais bu tegee lu métti dëgg yàlla ba sa xel nii lii ñi may teg nii métti na di nga xam ni métti na mais nag góor góorgóorlu rek ba jox ko koo xamante ni mën na yóbbu làmb ci kanam mën na defar làmb ci kanam mën nañu dimbali ñun mbëri ci kanam assurance moom man moom laa gën a jëpp ci ci kii bi. na la bil parce que man li ma comprendre Farma. Ah. mënoo renouveler ci ouverture saison. te dagg assurance. yow assurance mu ne la boo ñëwee sa làmb. 16 heures 17 la commencé assuré ak yow. Ah. ba yow boo bëree ba pare pare na ci yow. lan lan mooy assurance. lan mooy assurance assurance moom jiw bu dama naan jaratu ko sax assurance boobu ñuy wax jaratu ko sax boobu ñu koy dugg ci làmb gis nga jour bi di nga xamante ni dafa licence am dagg assurance am da koy sàmm ba keroog assurance am di jeex daal mi daleem mais ñun daal un an un bu ci nekk benn fan ci ay ngoon la lay maa ngi koy doog a gis suñu soir làmb wax dëgg yàlla. man bañ ma ko toogee di ko déglu nit ñi ma ko waxaat ay rees la maa jàpp man mii di dagg sama licence man xaw loolu ma ne nag comme déwén ni nii jaratul sax ñu ñuy teel a renouveler nit mën ngaa bàyyi ba am combat boo amee combat nga dem nga dem renouveler sa licence dañoo waxante dëgg am na ko yow mënoo jël xaalis ni ki dem dagg ko nga ne yow da nga koy ko ci ay sarax yow fan benn ngor nga ne moom nga assuré bu jógee foofu nga ne doo ko sa yoon néew ci amul sens wax ñoom moom ñoom la ñu war a njëkk a génne ci làmb ji ah. amuñu benn tey CNG euh, tey ku fi mënti ñëw est-ce que d'accord nga ñi fi nekkoon ñëpp ñu ñu dàqale wala ñu bàyyi leen fi. ñi fi baax ñu bàyyi fi ñi fi bon ñu dàq leen loolu doo amul lii de dëgg rek a neex yàlla képp koo xamante ni gis nga xam nga xam nga lu ñëpp moom dañ koy waxtaanee am na ñoo xam ne dañoo am xam-xam ci làmb ñi ngi fii soriwul am na ñoo xamante ni daraay xam-xam newu ci ñoom ba pare ñoo gën a bëri wax. ku dee ak sa bàmmeel mais ñu waxtaan ñoom seen biir gis nga ñoom ñi nga xamante ni ñoo bëgg kuréel bi dañ leen waroon a invité kenn ku ci nekk poser ay question ba xam loolu yéen a ko war a def de ñoom ñëpp laa nga daaj le ñoom ñëpp nga laaj kii boo boo téye CNG noo ko doxalee laaj kii boo téye CNG noo ko doxalee laaj kii boo téye CNG noo ko doxalee laajaat kee su boobaa yow sa jëm bopp am na ñoo xamante ni yow di nga ñii dañoo yeb <laughs> gis nga dafa moom dafa jar xel barke alxuraan dafa jar a bàyyi xel ñoom ñooñu wax ñëpp mérito nañ CNG waaye képp ku ko xamante ni yàlla jox na la ko yàlla na nga ko mérito ci sa xam-xam ci ndimbalu yàlla suñu borom loolu laa ñaan ndax mbëri moom xiiroo ba ŋaayoo ba amatu fi ñu ngi déggante ñu ngi waxtaan ñu ngi dëkkalante ñu ngi demalante am ay membre yoo xamante ni dañ koo teg ay tekk ci ay sart yu leer lépp lu benn mbër di waaw ñëpp a koy wax ñëpp ne déedéet kenn ki ne déedéet jàpp ne ñëpp a ko wax. wax dëgg yàlla. làmb yàqul ci réew mi. làmb defar na dëkk bi neexal na réew mi. dëgg yàlla ña koy yàq nag bëgg ñu koy yàqal ngala ngala nañ ñu bàyyi suñu làmb. Mm-hmm. waaw loolu daal laa may wax. Boy Niang Tapha Tine. làmb la làmb ah, neex na Boy Niang te Tapha Tine ñu ngi la ko doon proposé. Mm-hmm. ñu gis ni combat boobu antul mais combat boobu nan nga ko gisee. làmb la làmb neex na ci yàlla gunge ci jàmm. kan moo ci non ñoom ñaar ay barakat lañ parce que Tapha Tine boo xoolee combat bi mu ji man sax dama naan Tapha Tine mii li tax daanu ko defoo de bi waaw boo ñaar barakat la xëy na taxawaay bi mooy am différence ak doole ji mm-hmm. te Tapha Tine may xaw a suuf te moo ëpp ëpp maas waaw xëy na loolu mooy seen différence mais le reste moom ay bërekat lañu xeexkat lañu am nañ fulam nañ fayda. am na favori bëgg na liy def loogis am na favori. kan mooy favori bi ma ci wax kenn kii favori. Hmm. waa daal loo am na favori wax dëgg yàlla. Ah ah. loo amul favori amul. Hmm. ñun yàlla nga ni yonent bi yonent bi ñu suñu favori loo ci ba. <laughs> Sa Thiès euh, fi ñuy tëjee mooy. fan yi dafa am benn polémique bu am mën nañoo wax ni euh, muy mariage sumbulu ak ki nga xam xamante ne moom mooy sëñ Ablaye Diop xaas ñu leen di ñaanal jàmm seytaane bañ a dox seen diggante sumbulu bokk si yéen ñu gis ne dañoo gis ay ñoo xamante ne sax dañoo génn ñi naan sëy bi dina yàgg wala du yàgg mais ban message yow ngay ndax ñëpp xam nañ sa diggante ak sumbulu sa xarit la sa lépp la waaw gis nga sumbulu sa laay xam naa ko dem naa ba kër famem gunge naa fu bari mu nekk ni ku baax ni ku ñàkk ci ñaan ni koo xamante ni xam naa ni am naa yaakaar ni dina téye sungulu dina ko sàmm sungulu nag nangul ma mag ko moom garaaw waaw su ma sama rak nga mu bañ mais nit la boo xamante ni ku am fulla ci boppam ku am fayda ci boppam la wallaay légim laa lay bu demee ba dugg ci sëy caaxaan dugal ko ci ngir sel dugalu ko ci intérêt dugalu ko ci gis nga am na yoo xamante ni nit bu koy wax sax war nga koo joom wax ci ndax dafa am baat yoo xam ne rafetul nit da ngay wax lii rafet da nga defar loolu rek a am mais maa ngi leen di ñaanal rek yàlla suñu borom sàmm seen diggante te teg leen loxo. waaw wax dëgg yàlla man loolu laa ñi ñaanal ndax cat dafa gaaw bari na coow waaye nag yàlla rek ay buur. ndax seen diggante moom xëy na yàlla tuddoon na ko ci aras maa ngi leen di ñaan rek euh, Mouhamed judd ci Serigne Touba judd ci El Hadj Malick ak ñoom Baye Niass waaw ñëpp judd ci ndax mérito nañ ko franchement parler mérito nañ ko de couple baax ñu ànd couple bu am ful la xam nga sëñ Ibrahima la mais turam ak jëmmam moo ko moo ëpp kilifa wala bok moo moo gën a kilifa sa turam. ka jëmmam xale bu ndaw la juddu songul moom kan waxaale wu sëyu xale la nanan ay i waajur ñaanal ndax say naan say xale moom ay maga ci jàpp maa ngi ñaana rek yàlla suñu borom ñu dem ba xawe daas ci barke alxuraan ci barke weeru koor gi ci barke safaan euh, euh, lettre xadr bi ci barke bis bi nga xamante ni mooy dix-huit safar bi ci barke màggal gi ñëw ci gàmm gi ci jëmm yàlla suñu borom yàlla leen yàlla sàmm maa ngi koy ñaan yàlla leen yàlla téye yàlla leen yàlla aar yàlla leen yàlla sàmm sàmm nag couple yëpp waaw yéen ñi nga xamante ne amoon jëkkër nangu woon sëy ba léegi yàlla suñu borom may leen jëkkër yow ca boobu yàlla leen may jëkkër au moins sax nga changé al <laughs> Khadija mi ngi ci biir ah? mi ngi ci biir ne tax ñaare <laughs> allahu akbar ah? si ñooma benn jabar de di nga takk ñaare si ñooma benn jabar wala bi di takk ñaare si benn jabar di nga takk ñaare xa doo demee nga laaj ko ndax ma maa ko si ñoom benn jabar moo Khadija man yow laa gëm ba léegi du ci wax Sa Thiès cant ak ñeel na la ndax yow moom suma xarit nga yow suma frère nga suma lépp nga parce que tamit dañoo yàgg nekkul lii mooñ mooñ boole chaque jour heure ma la soxla da naan ma ñëwal te loolu lu rafetlu la bañ na ko ñëpp sax loolu lañ may naan bañ na ko ku ñu la soxla sax dañ naan ma sa kii bi laa bëgg a jël moo wax ni rek ah, kontaan naa ci yow ndax yow suma xarit nga daal mais defe naa waaw mooy li ma wax yow tamit sama xarit nga mais xam nga seytaan nga ndax man boo ma xamee xam ma ak ñëw ñu ñu yàggee nga xëy benn jour te ma bàyyi ci dem ci soxna si mais garaawul ndax lépp benn la. Mm. ndax tamit euh, farma ñu ñoo far kon ensemble. yàgg nañu xam ma du lii moo ñu boole. du lii moo ñu boole te it ànd bi moom dina dem ba ci kanam. aussi maa ngi profité di delluwaat di ñaanal sëñ Abdou Karim yàlla ma fi yàlla bàyyi oto yi nga xamante ni chauffeur yi oto yi sax laa njëkkee yàlla na baax chauffeur yi yàlla nañu daaw nànk yàlla nañu ibbi seen xol yi parce que caméra na de gis nga télé bi mën naa xat torop di santaat baax mooy li ma wax rek sant sëñ bu Karim baax a baax ñu ñaan yàlla yàggal ko fi di nuyu kilifa diine kilifa aada yi kilifa cosaan yëpp ndax tey euh, ñu ñëpp benn lañ tey di nuyu sumay nit yoo xam ne dañuy jàpp ci man Assane Minter ci la bokk Pape Mama Moussa Fall Andaw xam nga Sayer xam aatu mu réeroon tamit feeñ na som benn grand bu baax nuyu ji euh, aussi tamit di nuyu ji nuyu sama gars yi may ànd ñëpp nga xamante ni tey waa golf waa Kër waa Boune waa Casamance waa Gambie Kolda Sadio saajo Gambie aussi maa ngi koy nuyu baax a baax a baax dafa am nag sama nit yoo xamante ni du leen fàtte mukk mukk mukk sama àdduna Xaadim dafa gaañu Abbas Fati ci suma àdduna ñoo defar suma fii lu bëree bëri bëri moo tax am na lu bëri yoo xamante ni du ma ko mos a fàtt suma àdduna maa ngi leen di ñaanal ak ñi fa fekk ak jëleen fa fekk ñëpp yaara xaaraleen àjjana ci barke alxuraan jërëjëf